président Macky dafa defee takk ci wàllu politique. Hmm. parce que léeg-léeg man jàpp naa ne dafay réfléchir sax ci wàllu politique à sens interdit maanaam mën na takk teg acte politique boo xamante ne bii image bi mu lay projeté da nga naan président waru woon takk euh, teg waru woon posé acte bi. mais finalité bi. da ngay xam ne moom mooy ci am gain politique. président aussi tamit dafay réfléchir réfléchir à double sens. maanaam moom li mu waxanteeg Idrissa Seck Idrissa Seck du ñu ko wax te Macky Sall mi jàpp ñàmburam bu génn dañu ko wax xam nga l'histoire bégee Abdoulaye Wade Idrissa mën na wax waaw mais est-ce que dina ko waxee comme ni ko Macky Sall waxee woon non est-ce que dina ko waxee comme mook Macky Sall li ñu tënk parce que maa ngi fàttaliku au plus fort de la crise entre réew mi ak PDS Macky dafa euh, Abdoulaye Wade dafa leen woo pale Oumar Sarr réew mi Awa Gueye Kébé Pape Diouf et cetera mu ne leen devant les euh, la caméra de la RTS. Mhm. li ma waxanteeg Idrissa Seck du leen ko wax. Ah, te man mii duma leen ko wax. c'est man mënuma comprendre ñu ne président Macky Sall dañoo réeroo au début de la euh, polémique président Macky Sall recevoir les femmes de réew mi jëflanteeg ñoom teraanga. sachant que ni non d'accord on est en politique. sachant que ni les femmes et les jeunes c'est le gain. ou bien c'est le c'est en le gain électoral mandaal daal in li may jàpp mooy président ak idri sa Seck li ñu tënk du réeroo. tënkaguñu dara dañuy waxtaan ci candidat. waaw mais li ñu mais mais mais mais wuyu ma. candidat wuyu ma Idrissa Seck moo wax ne. li may gañe ci heure. mën na fay ay ministre mais moom amoon na damay tontu non attends waaw mais d'accord naa ay bor bañ fayal naa ma du ma dugg foofu man yëruma ay compte bancaire et cetera man man <laughs> jàpp ma ne Idrissa Seck bi muy dem mille 2020 au CSE dafa dem pour lijjanti xaalis jàpp ma loolu man gëm naa ni tënk nañu dara wax nañu dara